actualité daal di koy doore ci Euh, Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ku ne xam ne ne mhm. élection ku ne xam ne ne procès bi maanaam appel bi nga xam ne Mame Mbaye Niang mhm. euh, dugaloon na ko ngir euh, ñu daal di acté waat mbir mi parce que moom jàpp ne nañ actéwee mhm. mbir mi ja moom arrang maanaam gënalu ko te pourtant bindoon na ci page Facebook am que ne gënal na ko li ni mel mu ñëwaat par la suite ne loolu gënalu ko moo war a mu dugal appel gis nañ ne nag date bi daal dinañ koy xam bu baax a baax muy le 17 avril lundi 17 a jàkkaarloo waat na nga jàngatee waatee njëriñ li. bien sûr mhm. nekk na date boo xam ne le 17 avril incha allah comme ni nga ko waxee ci lañ ko di daal di jàpp. Euh, mhm. ndax ku ne xam na ne seen dernier wuyu bi ñu ngi ko amaloon le trente mars. bi nga xam ne mhm. ci la ñu génn. Euh, mu nekk jàngat boo xam ne xëy na def nañ ko ci. nekk ba ba ba ñu joxee li nga xam ne moom mooy verdict bi. Euh, moom Mame Mbaye Niang ba mu génnee dafa daal di Euh, non seulement jubilé mais aussi euh, publier ne dafa def ay remerciements ci ki nga xam ne moom mooy justice bi. Mhm. Euh, waaye tamit nag ci justice boobu nga xam ne seetal na ko non seulement ci sénégalais yi njortoon ne dafa luubal te alors que nee na luubalul. Mhm. waaye tamit ci famille ak yeneen ak yeneen. après ñu toog quelque temps mu daal di supprimer publication boobu euh, ci ëllëg sa ba ñu xëyee ci la woote li nga xam ne moom mooy euh, euh, point de presse conférence de presse du moins daal di fay yëkkati ay kàddu yoo xam ne defe naa ne ku ne dégg na ko mhm. ci la yëkkati ay kàddu ne carrément ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nekkul nitu dëgg mhm. gis nañ ne que à chaque fois kàddu yi muy yëkkati amul parce que jàpp na ne Ousmane Sonko loolu mu ko doon tuumaal ne que dafa daal di luubal nekkul loo xam ne lu am la mhm. nekk carrément kontaan na bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy verdict bi nga xam ne suñu mhm. justice bi joxe na ko waaye dee jot li nga xam ne moom mooy deux cent millions yi après da koy daal di yóbbu fi nga xam ne moom mooy euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñu daara yi mm-hmm. waaye tamit ci famille yi nga xam ne moom mooy maanaam famille victime nga xam ne ñàkk nañ peut seen ay mbokk ci li nga xam ne mm-hmm. moom mooy manifestation yi mm-hmm. après aussi ñu gisaat ne que defaat na ay réaction ne carrément day daal di def li nga xam ne moom mooy appel euh, parce que décision bi nga xam ne jël nañ ko nekkul boo xam ne lu ko gënal la euh, jàngat bi ñuy am foofu rek ndayaa du leen dul maanaam mën nañ jàpp ne que du moom Mame Mbaye Niang mooy wax mais dafa am peut-être ñoo xam ne ñoom ne ci ginnaawam wala dafa am benn mission wala ay dictée yoo xam ne moom dañ ko koy dicté voilà à chaque fois bu bindee effacé waat comme si du moo bien sûr comme si du comme si du ah, moom moo wax parce que bu fekkoon moom la effectivement moom mm-hmm. wax na lu leer Euh, parce que ku ne xam na ne rek ba mu génnee fi nga xam ne moom mooy ca tribunal ba euh, dee ñu joxe verdict bi rek ku ne xam na ne boo gisoon ci kanam mbégte nga fay gis ak mhm. contentement boo xam ne bu mag a mag la euh, di wax ne que kontaan na ci justice bi nga xam ne moom moo fi nekk ndax mhm. àtte na yoon yi selon moom àtte na li nga xam ne noonu la war a àttee mais buñ gisee quelque temps après mu daal di wax li nga xam ne moom mooy contraire loolu mhm. day mel ni comme si moom xëy na peut du moom kese mooy wax wala laata mu doon yëkkati kàddu am na ñoo xam ne waroon na leen mën a avertir ba mhm. ñooñu jox ko li nga xam ne moom mooy consensus euh, mhm. pour mu mën a daal di publier loolu euh, mhm. kon day nekk loo xam ne rek li ñu waxoon démb ak barki démb moom mooy ñëwaat nekk procès bi euh, nekkul procès boo xam ne moom moo moom moo opposé ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko mais procès la boo xam ne xëy na dañoo dugal leneen ci biir non seulement bu njëkk ba dañoo jiitaloon ne carrément bëgg a ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko pour mu bañ a participé ci élection présidentielle en 2024 mais gis nañ ne que après leneen daf ci am muy maanaam non seulement bëgguñu mu bokk mais bëgg nañ ko toroxal wala bëgg nañ ko xëy na def loo xam ne après du tal sax maanaam waxu mhm. élection ndax bu fekkee ne que dañoo joxe benn verdict après nga mhm. woote appel avocat Ousmane Sonko yi aussi woote appel mhm. mu leer la ne verdict bi peut-être nekkatul verdict boo xam ne dañ koy jël ba mu ba mu définitif parce que dès appel bu amee rek xëy na changement mën na am foofu après nga am audace yónnee huissier ci kër ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko pour ñu daal di saisir këram mel ni comme si moom daf la ne carrément parew ma wala mënuma pour fayda li nga xam ne moom mooy deux cent millions dëgguma la sax mhm. dëgguma la mooy war rek deux cent yi nga xam ne euh, xam nga ma boo xoolee Mame Mbaye Niang avocat am mhm. vingt neuf milliards lañ doon laaj ki nga xam maanaam euh, xaalis bi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko ne yaa ko luubal mhm. léegi ñëwaat euh, mu ne deux yi moom dafa tuuti mhm. kon moom bu dugalaatee li nga xam ne moom mooy euh, appel mhm. mooy que pour que ñu a yokk li nga xam ne moom mooy daan yi itamit mais n'oublie pas que aussi que ne parquet tamit daal dinay dugal appel appel Mame Mbaye moo ko dugal ak parquet te ku ne xam ne ne bi ñoom ñoo dugaloon ci bureau dossier faux usage de faux dans un document administratif ak li nga xam mooy injure publique te ki nga xam ne moom mooy procureur dafa am xam Yaxam ta moom Euh, attewul ci usage euh, de faux ak ak injure publique. non non ci mhm. dafa bëgg ñu atte Ousmane Sonko ah, defe naa ne moom moo moom moo nekk ne que am na leneen loo xam ne maanaam day ñëw moo tax ma ne la dossier bi mën nañ ko qualifier que ne. Mhm. Euh, nekkatul dossier boo xam ne day opposé ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Mhm. ak ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang ndax ku ne bu doon ñoom ñaar kese dañ koy yemale ci li nga xam ne moom mooy diffamation. mais bu ñu demee ba maanaam dugal ci li nga xam ne moom mooy injure publique. dugal ci li nga xam xam ne moom mooy faux et usage de faux kon defe naa ne. nekkatu faux et usage de faux boo xam ne gisagoo document. bien sûr gisagoo document boo xam ne yow déjà bu waxee ne faux et usage de faux rek na jàpp ne que euh, ci bile procès bépp. Euh, preuve boo xam ne Ousmane Sonko indi woon nañ ko dañ ne déjà baaxul te yow xëy na tegagoo ci sa bët euh, kon de nekk loo xam ne doy na waar lool lool ci koo mhm. xam ne xëy na peut euh, gis nga ne que mi ngi indi ay preuve mhm. ay avocat am bàyyi woo leen ñu am liberté wala xëy na yëkkati kàddu yi nga xam ne waroon nañ ko mën a yëkkati pour mhm. défendre seen client te effectivement ci seen ay droit lañ nekk bàyyi woo aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy mois pour ñu ñëw joxe li nga xam ne moom la ñu xam bàyyi woo aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy maanaam Mm-hmm. bàyyiwoo aussi ki nga xam ne moom mooy maanaam Ousmane Sonko mu daal di indi lépp loo xam ne preuve la ndax déjà clé yi aussi euh, bàyyiwuñ ko mu ñëw ndax ku ne xam na ne ci biir clé boobu am na ay preuve yu leer nañ yoo xam ne euh, ci la ne mm-hmm. euh, ndax lu ci mel ni vaar bi nga xam ne vaaroon nañ ko ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang mm-hmm. ba mu taxawee ne carrément rapport am na ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp mi ngi ci biir clé bi kon dey daal di confirmer rek gi nekk Euh, dossier bi nañ ko waroon àtte àtte ko wala la ñu waroon favoriser favoriser wuñ ko. mais aussi euh, dañoo dañoo jégg ci liggante mi nga euh, ci diggante li nga xam ne moom mooy diffamation bëgg indi leneen. Mhm. ndax defe ne ki nga xam ne moom mooy Alioune Tine wax na wax ju am solo. Mhm. nekk bu mbir amee maanaam da ngay xool fi nga xam ne foofu nga war a commencer. Mhm. fi ñu war a commencer du fenn fu dul ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko donte moom moo ko mujjee wax yëkkati na ay kàddu ne carrément ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang dafa luubal maanaam suñu 29 milliards. Euh, déjà moom moo ko mujjee wax pourquoi pas euh, balaa ñu naan euh, moom Sonko daf ko diffamé ñu jéem a xool ba xam est-ce que li muy wax réellement lu am la mhm. jéem a xool ba xam vingt-neuf milliards yooyu ndax dañ ko luubal wala luubatuñ luubaluñ ko mais dañoo ñëw rek directement daal di engagé li nga xam ne moom mooy affaire diffamation bi nekk carrément Ousmane Sonko dafa diffamé te nag buñ naan diw dafa diffamé diw est-ce que doo xool kàddu yi mu yëkkati xool ba xam kii li muy wax dëgg la wala du dëgg bu ma ñëwoon ne carrément ah ndeyaakat dafa dugg ci dama ko gis mu dugg ci benn bureau. Mhm. est-ce que bu ñu nee Fatima dafa diffamé ki nga xam ne moom mooy Ndaya est-ce que du ñu vérifier d'abord ba xam si réellement ndeyaa dugg na ci bureau boobu bu dee dugg na fa bien sûr bu dee dugg na fa kon xam nga ne diffamé wu ma la parce que li ma wax moom moo am mais bu fekkee duggoo fa ah instant boobu la ñuy taxaw wax ne carrément kat Fatima dafa diffamé ki nga xam ne moom mooy ndeyaa parce que ndeyaa duggul ci li nga xam ne moom mooy bureau bi dañoo war a ubbi benn enquête boo xam ne pour xool 29 milliards yi est-ce que réellement euh, existe na que ne IGF dafa daal di épingler Mame Mbaye Niang ba pare soogoo àtte mhm. ci wàllu diffamation bien loolu lañ mhm. waroon mën a def parce que déjà mën nañ jàpp ne que dossier bi ci li ñu mujj nii ci la ñu njëkkee. Mhm. te bu fekkoon topp nañ exactement li ñu waroon topp ca commencement ba defe naa ne fii ñu mujj sax duñ fi yegg. Euh, ndax bu ñu xooloon mbir yi ndax ndëgëm ndeyu mbili ji moo taxaw ne carrément rapport am na euh, kon bu ñu defoon li nga xam ne moom moo war dinañ xam ne kat carrément rapport am na ndax moom ndeyu mbili ji wax na ko. Mhm. Amadou Wa wax na ci ak keneen ak keneen wax na ci euh, kon day nekk loo xam ne buñ ko toppoon rek exactement dinañ xam réellement fan la mbir mi demee mhm. mais quant nga topp nit ne ko da nga ko daan. daan bi nag du leen lu dul maanaam dafa diffamé ci diffamation rek te ci ay juge yoo xam ne nee nañ bañ duggee si métier bi ba tey mosuñu gis euh, dossier boo xam ne euh, dem na bien sûr ci yoo xam ne taxaw nañu carrément mën nañ ci citer ki nga xam ne moom mooy euh, ma ma ma soxna kan mhm. nekk avocat Ousmane Sonko mosul gis nee na benn dossier boo xam ne diffamation la ñu ciy amandé nit xaalis waxatuma laa mu toll ci deux cent millions kon déjà foofu rek xel ñaar dafay daal di ñëw taxaw Euh, fi nga war a njëkkee njëkkeewu fa ñu ne déet na waaye nga yokk ci yeneen ñaari mbir muy injure injure publique ak li nga xam ne moom mooy faux et kon day nekk loo xam ne euh, li ñuy wax à chaque fois rek vingt neuf ñoru leen fi ko dugal ñoru leen luubal bi ñoru leen mais li leen ñor mooy maanaam fexe xool nan la ñuy def ba ba teg ay daan ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndax bu Mame Mbaye Niang demee ba taxaw ne carrément daan yi ñu ko teg nii dafa nekk yoo xam ne dafa dafa dafa simple sévère bien sûr bëgg naa mu gën a sévère kon donc kooku am na leneen lu ko yëkkati xam nga rek nee nga daf la diffamé dem ngeen ci yoon donte àtte bi sax ku ne xam na ne jaarul yoon mhm. mais nee nga dañ la diffamé dem nga ñu àtte teg li ñuy teg kon day day fekk si waat ne que moom man dañaa du moom mooy wax appel jaroon na foofu noonu parce que yow nee nga ki daf la diffamé yoon daal di koy daan li nga mhm. xam ne moom mooy euh, deux mois mhm. euh, de prison avec si ak li nga xam moom mooy deux cent millions oh, euh, deux cent millions dommages et intérêts mbir moomu noonu procureur ku ne xam ne ne injure publique xamuñu exactement. Mm. procureur ci yan anam. Mm-hmm. la waxee injure publique ne Ousmane Sonko dafa. Euh, def injure publique maanaam dafa wax loo xam ne kàddu yu ñagas la. yoo xam ne dafa dafa maanaam dafa. yoo xam ne amul sax mooy euh, mm-hmm. léegi nag faux usage de faux ku ne xam ne ne faux mm-hmm. usage de faux ko mooy que ab dossier day ñëw. bien sûr nga xool wala ab rapport day ñëw nga xool rapport bi nga ne lii de c'est faux. mais rapport ñëwagul injure publique askan wi dégguñu ko kon moo lay wax est-ce que est-ce que appel amoon na foofu noonu dans les euh, normes. bien sûr xam nga déjà appel. amoon na ci wàll. amoon na ci wàll ci côté maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo woote appel euh, pour leeral mbir mi ñi nga xam ne ñoo ne ci côté Ousmane Sonko amoon na fa wàll. mais amu fa wàll maanaam ci ñi nga xam ne ñoo ne ci côté Mame Mbaye Niang. lan moo tax amu fa wàll. effectivement euh, parce que déjà euh, ki nga xam ne moo la moo da nga def devoir. indeegoo feuille bi mu ne la carrément lépp li nga def ci feuille bi dafa dafa c'est faux baaxul euh, defe naa ne kooku maanaam am na loo xam ne nga kon booba bien sûr non jaru nga yóbbu feuille parce que bien avant nga yóbbu feuille donte ñoom ñoo la laaj feuille mais bien avant ngay laaj feuille bien avant aussi ngay indi li nga xam ne moom mooy preuve yi nee nañ carrément nekkul ay preuve yoo xam ne preuve yu baax la euh, kon donc defe naa ne appel foofu bu ñu ko woote waatee donte dem nañ ba teg la daan te ci kaw daan yooyu ñu ne teg ku ne xam ne ne teguwul ci yoon ndax bu fekkoon ne que dem nañ sax ba teg ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ay daan ñu teg ko ay daan yoo xam ne même bu fekkee procès bi jaarul yoon ñu teg ko daan yoo xam ne au moins jaar na yoon daan yi nga xam ne képp koo xam ne diffamé nga noonu lañ la war a mën a daanee mais uh-huh. maa ngi koy wax sànq mosuñu gis maanaam procès boo xam ne wala mosuñu gis maanaam loo xam ne diffamation la ñu la ciy daan Euh, ñu la ci amende du moins xaalis waxatuma laa ak mu yegg ci deux cent millions mm-hmm. euh, kon mën nañ jàpp ni que ñu doon wax wala li kàddu yi nga xam ne ñëpp euh, boole nañ ko di wax defe naa ne day daal di ñëwaat ni que dossier bi procès Prodac bi nekkul procès boo xam ne xëy na peut moo opposé woon ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang parce que bu fekkoon moom moo leen opposé dinañ jéem a lijjante d'abord fan la vingt-neuf milliards yi ñuy wax ne que moom Mame Mbaye Niang daf ko fan la ñuy fexe xam fan la dugal xaalis wala nan la ñuy fexe xam e-, exactement exactement ndax lii Ousmane Sonko kàddu yi muy yëkkati. Euh, nekk carrément ki nga xam ne moom mooy ma euh, Mame daf ko lu ba ñu jéem a fexe xool ubbi benn enquête xool ba mm. xam effectivement mm. euh, dëgg la wala du dëgg mais bu ñu demee ba loolu yëpp ñu teg ko ci suuf parce que déjà maa ngi naan procès boo xam ne ñaari uh-huh. mbir uh, li waral coow li mooy maanaam uh, nee nañ diw dafa luubal ubbiwuñu enquête ci milliards yi nga xam ne moom lañ luubal kon déjà foofu am na loo xam ne dëgg nañ ci seen tànk uh-huh. après ñu ñëw nag concentré ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko uh, uh-huh. ci benn simple diffamation bi nga xam ne wax nañ ne que moom da ko diffamé ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang te déjà moom moo ci mujjee wax ndax bu ñu demee ba maanaam ñeneen ak ubbi ci li nga xam ne tij bind ci li nga xam ne moom mooy livre ñeneen ak ñeneen wax si Euh, Birahim Seck kon day nekk loo xam ne moom la leen ñoroon mhm. mooy fexe ba euh, éliminer ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko pour mu bañ a participer ci élection présidentielle 2024 euh, te pareeguñu pour bàyyi li tax ma ne la pareeguñu pour bàyyi mhm. déjà joxe woon nañ verdict ba ku ne xam ne ne moom Mame Mbaye Niang mi ngi doon jubilé peut-être xam ne ñun li ñu amoon parce que nag ba verdict bi génnee ñëpp nee nañ ah alhamdulilah ñu ci ëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko nee nañ alhamdulilah mhm. ba gis nañ ne que xañuñu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko boobu la ñu a wax parce que boo xoolee. Mhm. Euh, na nga xam ne noonu lañ jaaralee procès bi. mooy le 30 euh, le 30 bii passé 30 mhm. mhm. boo xoolee ni ñu jaaralee bi kon alhamdulilah foofu noonu dëgg la nag euh, nit ki sa leader buñ ko war a teg daan yoo xam ne li nga xam ne pour mu bañ a doon président. pour mu doon pour mu bañ a doon candidat autant pour moi. léegi nag xañ ñu ko di wax alhamdulilah gaade mais boo xoolee procédure yi dans les normes que ne ñoom ñoo war def appel pour ni malheureusement c'est le contraire. bien sûr mhm. malheureusement c'est le contraire alhamdulilah wala xëy na crier victoire amu fooy woon yoon. parce que mhm. teeloon na ndax nee naa nag euh, diggante fii ak mille vingt 2024 defe naa ne lu na xej na ci diggante mhm. bi. Euh, te koo xam ne ba mu commencé ba tey ba mu dooree ba tey mhm. euh, amul benn yoon tànk ginnaaw mais tànk kanam ndax ku ne xam na ne mhm. euh, moom Ousmane Sonko am na ci ay plainte yu bëri yoo xam ne daf koy déposé mhm. ku ne xam na ne aussi am na ay plainte yu bëri yoo xam ne dañ koy déposé mais xëy na peut-être validé wuñ mais gis nañ ne que bu jëmee ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mu leer leen ne foofu war nañ fa mën a am dara rek dañuy daal di accélérer mbir mi ndax ñu gisee mbiru procès bi Prodac bi gis nga niñ ko accéléré ba xëy na am ci li nga xam ne xëy na donte peut amuñu ci effectivement liñ bëgg mais mën nañ jàpp ne que am na benn point boo xam ne xëy na peut nañ ko mhm. muy fexe amende ko ak tamit daal di koy daal di koy condamné deux mois yoo xam ne sursis la euh, kon defe naa ne euh, crier victoire mën bu baax a baax ci ñi nga mhm. xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko euh, ndax defe naa ne li ko desee bari na lool fii ak 2024 li ci des bari na te nii nii ñu jëm li tax avocat yi génn keroog daal di def li nga xam ne moom mooy seen ay conférence def seen conférence de presse mhm. parce que nee nañ xam nañ ne ñii pareeguñu bàyyi euh, parce que koo xam ne dafa woote procès nga indi ay preuve mu ne la carrément preuve yi du ko jël nga indi say témoin mu ne la carrément tribunal bi dafa fees ba ñaari ñaari témoin sax amuñu amuñu place boo xam ne mën nañ fa duggee mhm. euh, ñu ne déet na waaye aussi ñu gis ne que seen avocat yi joxuñu leen fa li nga xam ne moom mooy seen àq ak mhm. seen yelleef kon day nekk loo xam ne euh, xam nañ ne que bu baax a baax liggéey bu bëri moom moo leen dese pour ñu am li ñu bëgg euh, mhm. parce que gis nañ ne que ñii parewuñ ci pour deltu ginnaaw li ñu bëgg fileek euh, amuñu ko rek du ñu daal di am jàmm muy maanaam xañ ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mu nekk candidat en 2024 voilà tant que lu ñu bëgg amuñu ko duñu am jàmm duñu am jàmm voilà mu nekk tamit li nga xam ne moom mooy appel bi nga xam ne euh, Mame Mbaye ak tamit parquet bi dugaloon nañ ko le 17 euh, avril bii nii la ñuy daal di euh, actewaat bii les procès waaye nag fañ koy actewee nag fa la mbir ma nekk muy cour d'appel te ku ne xam ne ne cour d'appel ki nga xam moom mooy Amadou Diouf ginnaaw ba chamboulement yi amee ca mois yi la ñu weesu ki nga xam moom mooy Amadou Diouf moom la président Macky Sall daal di teg ca centre te cour d'appel te ku ne xam ne ne moom Amadou Diouf moomu ne moomile moo nekkoon ex procureur te moom moo dugaloon ci biir dossier faux usage de faux dans un document administratif ak li nga xam mooy injure publique mm-hmm. kon Ousmane Sonko ca moom la war a daliwaat bien sûr gannaaw boobu jógewee ci ki nga xam ne moom mooy yaa xam kay tax juge bi nga xam ne euh, ci mm-hmm. euh, di euh, moom mm-hmm. ki nga xam moom mooy Amadou Diouf ki nga xam ne moom moo ko chargé woon ñaari charge ñaari charge yooyu noonu nan nga jàngate waatee bien sûr jigéen ci biir dal ci bële defe naa ko defe naa mooy li wax rek nekk pare gu ñu benn yoon pour deltu ginnaaw ci logique bi nga xam ne moom la ñu nekk démb ak barki démb mhm. mais euh, peut-être espérons bien que cette fois-ci mu nekk procès boo xam ne xëy na peut-être euh, différence euh, dina ci am mhm. euh, parce que avocat yi nañ li amoon ci bële Euh, procès passé duñ ko nangu. Mhm. Euh, dinañ ñëw taxaw def seen ay liggéey normalement. Mhm. mais aussi nañu nañ leen accepter li nga xam ne moom mooy seen ay preuve mhm. mais quant à nit ki indeegul preuve nga ne faux et usage de faux ne carrément preuve yi yow tegagoo ci bët xoolagoo ko observé goo ko nga ne carrément lii euh, nga xam ne gisaguma sax nekkul loo xam ne lu baax la kon foofu xel mën na fa teey bu baax a baax. mu nekk loo xam ne doy na waar ci liñ ci liñ jëm ni ndax yaa ngi koy wax léegi ndëgam moom moo taxaw carrément yokku ne moom mooy dossier bi injure publique ak li nga xam ne moom mooy foo usage de faux kon day nekk loo xam ne xëy na kooku pook pour nga am dëgg wala pour mu jox la dëgg foofu dina nekk loo xam ne lu lu lu jafe la euh, donte nag gis nañ ne que euh, dem nañ ba toll ci moment boo xam ne xëy na suñu mhm. justice taxawaay bi nga xam ne waroon na ko am euh, du ko du ko du ko am mais mhm. lu mu metti metti rek ku ne xam na ne que yàlla du ànd ak ci koo xam ne xëy na peut-être nekkul ci dëgg mhm. ndax nag lu mu metti metti metti mbir yi mhm. war nañ ko mën a teg ci yoon wala nit ki lu mu nekk nekk sa adversaire politique mhm. am na benn àq wala am na ci ay droit yoo xam ne nekk na ci mhm. euh, gis nga ne xëy na peut-être dafa tooñ euh, dafa diffamé waxal nit ki xëy na peut-être loo xam ne yéen jàpp ngeen ne amul ak lu mën ci demee àtte ngeen ko ba xëy na àtte bi euh, verdict bi nga xam ne da ngeen ko joxe sax wala li daani ngeen ko teg nekk na daan yoo xam ne diis na parce que waru foon mën a toll ndax bu ñu bu ñu bu ñu defee jàngate rek wala bu ñu bu ñu selon ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi nga xam ne xam nañ wàllu yoon doon bu baax a baax ñoom mhm. ñoo ko yëkkati euh, kon defe naa ne Ndaya mhm. le 17 moom euh, incha dina nekk loo xam ne xëy na peut-être surtout tamit euh, ci biir koor gi aussi dina dina dina am dina am enjeu dina dina doy waat parce que <laughs> mhm. avocat yi ñoom ci seen jëm bopp nee nañ parewuñu pour pour bàyyi ñuy jël injustice di ko teg ci ki nga xam ne moom mooy seen client di Ousmane Sonko li ñu nangu woon ci procès bi passé duñ ko nangu mhm. euh, te aussi xëy na peut-être bettoon na leen lu la bett mën mhm. mais bii pas jël nañ seen ay devant préparé nañ seen bopp ba lépp euh, lu leen yoon may rek ñu daal di koy jël mais dinañ def euh, seen seen seen kémtulaay kàttan dinañ dinañ def effort aussi ba daal di défendre ki nga xam ne moom mooy seen client di Ousmane Sonko voilà mi ngi noonu nag bii lay procès daal dinañ ko yóbbu foofu noonu ca cour d'appel lay daal di amee bii nii ku ne xam na ne cour d'appel bi ku ko jiite mooy Amady Diouf te ku ne xam na tamit Amady Diouf moom moo chargé woon Ousmane Sonko ginnaaw ba dossier bi ginnaaw ba Mame Mbaye Niang porté ci wàllu euh, diffamation moom nag moo ci daal di yokk faux usage de faux euh, dans un document administratif ak li nga xam ne moom mooy injure publique mu nekk ñaari charge yoo xam ne amaan na sax moom moo gën a euh, diisal bi dossier wala bile procès en diffamation mais nag la ca gën a doy waar itamit mooy que le 17 avril bii la te tamit ci biir koor gi lay daal di amee ñu rek ñu xoolal ba xam ana bii lee mbir fa lay daal di mujjee est-ce que dinañ ko àtte euh, normalement bàyyi avocat Ousmane Sonko koy dugg comme ni ko comme ni procès yëpp di demee euh, noonu wala tamit euh, dañ bàyyi ki nga xam ne moom mooy Juan Branco avocat Ousmane Sonko tamit euh, ñëwaat euh, ci dëkk bi comme dañ ko refoulé woon ginnaaw ba mu bëggee woon na ñëw plaidel ki nga xam ne moom mooy client am ba xam tamit norme procédure bi dinañ ko daal di respecté bàyyi ñi nga xam ne ñooy témoin ñu dugg waaye tamit clé bi nga xam ne ñoom jàpp avocat Ousmane Sonko jàpp nañ ne am na li nga xam ne moom mooy preuve ba xam dinañ ko accepté loolu tamit nañ ko xool mais loolu tamit buñ ko defee amaana sax au moins dinañ ne respecté nañ li nga xam moom mooy procédure bi mais loolu tamit mën nañu koo xam jamono ji mais nañ xaarandi ba xam le 17 ana fan la wànneen di mu jékk ay euh, gëttam bu ñu jógee foofu itamit balaa ñoo génn ci waa Pastef rek dañoo ñoo nga ci euh, bracelet yi nga xam ne Fatima mm-hmm. gis nañ ñoom ñu daal di